bisimilah rahmaani rahiim salaamaaleykum salaamaaleykum man Arak Soxna kii Aïdara Mboup tey samedi à partir de vingt heures le 10 juin suba dimanche le 11 juin 2023 dama bëgg wax gan yëpp suba dimanche dafa baray ay coow ci àdduna suba dimanche dafa bare accident suba dimanche dafa bare ay dee. mais suba dimanche accident lu garaaw yéen na ko dégg ci àdduna yëpp suba kenn ku ne nga moytu sa bopp maa ngi ñaan yàlla yàlla indi jàmm dëkk yëpp ma ngi ñaan waa Sénégal yëpp suba kenn ku ne nga moytu sa bop à partir de euh, tey ci guddi le 10 juin ba le juin dama bëgg nit yëpp nga moytu sa bopp. suba dafa bari accident suba yéen dina dégg accident lu garaaw dégg lu dégg fu ne loola wax su ma wax benn affaire du Sénégal kese danga xam dafa may jour dafa neex dafa may jour de neexul dafa may jour nit war naa tukki dafa may jour nit waroo tukki parce que si dafa gis souvent damaa ngi def vidéo ba souvent duma def vidéo parce que man am ma jot tout le su ma gis benn jour dafa garaaw dina génne wax ko àdduna du Sénégal kese ma dëkk yëpp nit ku ne mooy moytu suba le 11 juin 2023 maa ngi def vidéo bi tey le juin à partir de 20 heures suba maa ngi ñaan nit yëpp loo def sarak pour sa bopp yàlla dina la dimbale ci problème suba nga def suba bulu coow coow baaxul suba suba bulu xeex-xeex baaxul suba suba bul def dara dina indi coow soo gisi coow daaw coow bul coow soo bugg daw sa oto nga moytu soo bugg def lu ne nga moytu kenn ku ne nga moytu safara nga moytu courant subo yin dina dégg accident mo n'importe quel accident yin dina ko dégg subo si yéen mi ngi dégg ma ngi ñaan yàlla yàlla indi jàmm àdduna yëpp kenn ku ne moytu sa bopp subo subo dëgg dëgg subo neexul waaw suba dafa baray coow àdduna yëpp suba pisango nga gis dee lu ne suba tam nga gis problème lu ne suba nga gis accident lu ne suba nga dégg fetal dafa rey kii nga dégg kii dafa jàmm ki ak paaka nga dégg dafa def accident loxo bi dafa daag nga dégg kii dafa def accident bopp dafa toj nga dégg dafa def accident dafa dee mais en tout cas dina bare suba def lu ne nañ conseil waa senegal yëpp nga moytu bi mu nekk deuxième partie maa ngi ñaan yàlla yàlla indi jàmm ba léegi ma ngi ñaan yàlla yàlla indi jàmm sénégalais ku soo dégg sama vidéo maa ngi ñaan yàlla kenn ku ne nga ñaan sa bopp nga ñaan dëkk bi sinon Sénégal entre tey le 10 juin ba le 24 juin ba le 27 juin. senegal dina tàng lool lool lool lool lool lool lool ñu ngi ñaan yàlla bul def dina am ay coow bandit yi dina wax est du ma bàyyi sama dëkk ma ngi ñaan yàlla yàlla bul ko indi ba léegi maa ngi ñaan kilifa yi ba léegi ñoom dina wax ci affaire senegal ba léegi maa ngi wax kilifa yi ñoom dina def sarak ci affaire senegal affaire senegal coow. ah dama ragal dama tiit mais yàlla kese mun na lu ne yàlla kese mun na lu ne yàlla moo indi coow yàlla mun na faj coow maa ngi ñaan sénégalais yépp ko am sama vidéo nga partager nga wax sa mbokk yi le juin ba le juin kenn ku ne nga moytu sa bopp te le juin à partir de vingt heures maa ngi def vidéo bi man nekk ma yàlla mosuma nekk yàlla mais lu ma gis loolu laa wax kenn du ma fay yàlla kese mun na ma fay ku dégg sama wax macha allah soo déggu sama wax tam macha allah wax ma kenn nga dégg sama wax forcé ma kenn na nga wax rek ne di ku ne nga moytu sa bopp soo moytu sa bopp nga gis soo moytu sa bopp tam nga gis ma ne dégg suba le juin Sénégal dina Sénégal dina ay problème dëkk fu ne wax benn affaire du Sénégal kese suba suba dina tànk tey ci guddi ba suba yéen dina dégg fu ne dafa bari ay coow yéen dina dégg fu ne ki dafa dafa accident lu garaaw yéen dina dégg dégg ki dafa am oto dafa taal ki kër dafa taal. ou bien bi eh, station yi dafa taal ou bi en tout cas suba problème dafa bare ñaar nit soo am soo gis dafa am coow seen diggante bul bay coow bi dina garaaw parce que soo continuer ci coow bi rek dina indi beneen problème soo waxtaan ak sa xarit soo gis dafa bare ay coow bàyyi waxtaan bi soo nekk wax ak sa jëkkër soo gis coow bi dafa bare.